waaw euh, maa ngi leen di ziyaare bu baax a baax a baax a baax baax comme niñ leen koy waxee wala defalee toujours ñu ñëwaat rek am ak yéen waxtaan waaw li ñuy ne nag euh, ragal a féete day xañ wërsëg defe naa ñun ñu bari moo ñu bëgg a dal parce que Sénégal rek laa gis nit mu gis ay fen yu tooy xepp ci kanamam mu koy layam layame fan yi gis naa gis ngeen leen ñoom ñu ngi ci seen lancé patriotes yi yéen laay waxal nag maanaam jëli carte d'identité yeeg maanaam mobilisation beeg maanaam pas-pas beek yéen a ngi ci de waaye pour man ba léegi des na ndax gis nga élection yi rek la ñu war a mën a am ay élection ci senegal yoo xam ne kenn du ko layam layame maanaam quatre vingt dix à quatre vingt à quatre pour cent premier tour coow li jeex foofu lañu ñu toll ñoom ñu ngi rang boo leen xoolee soxna soo suma leen di wax soxna si nga xam ne jaral na ko muy sulli ay néew di ci suul ay liggéey recevoir na Amadou Ba tudduma tur nag léegi nag ku dul sulli ay néew di ci suul ay mbir ci suuf yow soxla woo nga inquiété wu voilà ñi ne aussi ñi fi newoon ñoom dootuñu recevoir ti benn politicien ah Amadou Ba gaa yaa ngi koy recevoir de dil yaa ngi toj rek gaa yaa ngi teg dil yi de préparé wu nañu patriote yi nag il faut ñun tamit ñu wane ne li nga xam ne ñoom ñoo ko bëgg ñun ñoo leen ko gën a bëgg téeméeri junni yoon muy Sénégal ñoom daa gëmuñu Sénégal voilà ñoom gëmuñu senegal sénégalais yi lay waxal il faut ñu am fulla am fayda ñu ngi recevoir ante rek Amadou Wuri Ba Amadou Diagne Ba xawma Amadou Lan Ba ma nga yóbbu ay diplomate ma ngay feesal ay malet doomu diwa ngi sukk ak ndelam diwa nga toog ca koñ ba fas kanamam sol ay noir fumé ci guddi wala ci lëndëm xam nga noir fumé dama koy wax nit ñi pour ñi ko xamul noir fumé américain sunglasses la ko tuddee maanaam c'est fait pour le soleil maanaam pour protéger tes yeux léegi nag dans les monde dans dans le à l'envers les bandits et les délinquants bu ñu xamee ne nekkuñu ci lu jub même ci mbooloo nii bu ñu nekkee ci ay tojaange da ngay gis ñu toog seen sol seen noir fumé looy solee noir fumé ci biir kër wala ci la ci ci foo xam ne mi ngi lëndëm ba pare nga dóor ci say noir fumé toog c'est des signes de manipulateurs ay naar naafeq la damay wax ak sénégalais yi nag neena naa pour ma wax ko mu leer pour ñu xam te du am benn layam-layami il faut ngeen xam ne élection yii ñu jëm élection yii mooy élection yu gën a important ci histoire du Sénégal jaratul sax déglu ay nee nañu wala benn journalu France ak benn journalu Amérique bind naag déggoon nañ fi Tilo Oil ak ma ak kii Euh, Maïli Jones la wala journaliste ba ñu changé woon turam ba journaliste ba def investigation xaritu ay dara ba voilà donc xam nga yooyu yëpp gis nañ ko fi ñoom ils sont capables de tout balaa yàgg journal bi génn démenti ne leen man tudduma fi Ousmane Sonko waxuma fi turam donc génnee leen sama tur ci seen affaire yii balaa yàgg rek mais dem leen jëli seeni ay carte d'identité dama ne woon naa ñëwaat sonjaat doomu sénégalais yi sonjaat sénégalais yi ñu dem jëli suñu ay carte d'identité te xam ne carte d'identité mooy gagné vote ay kàddu neex na éveil de conscience manta mënta gagné vote vote carte koy gagné te pare na ngeen massivement ñi pare na yëpp bu ñu voté premier tour sax duñ ko yeggali maanaam dañu genn wàllu premier tour rek mbir ma euh, sabar ba tas mais Amadou Ba ma nga ma ngay wër kër ya voilà kër ya voilà ma ngay gisee soxna ya ma ngay gisee gaaya ñoo ngi diilante ci seen biir ma ngay yóbbu ay diplomate di teg ma ngay diil porte parole yi Amadou baa ngi diil voilà sénégalais yi am leen fulla te am fayda ñu jóg xar suñu tànku tubéy voilà ñooñu nga xam ne par exemple jaral na leen sulli ay néew suul liggéey ci suufu néew ba ñoom ñëpp ñu ngi koy recevoir fi mu ne fi mu ne nëbbatootuñu de ñoom nëbbatootuñu parce que xaalis jaral na leen seen lii jaral na leen lépp xaalis jaral na leen sacrifier Sénégal mais ñun sénégalais yi nañu am fulla am fayda am jom te taxaw fi ñu taxaw te xam ne Sénégal kenn du ko sacrifier bàyyi ñu fi dinaa ñëwaat ci kanam incha allahu rabbi maa ngi ñëwaat ci kanam ak yéen voilà lii loo xam ne woon la rek il faut ma indi ko parce que dañu gis euh, ñoom ñuy def seeni ay deal waaye gis aussi ndeysaan suñu journaliste bu baax ba ca wal waa jooju il est très pertinent bu waxee nga déglu ko rek nga xam ne ah macha allah il est très pertinent indi na ay leeral indi ay kàllaama def ko comme ñoom sànjoogu indi lépp teg ko sur place ils sont très pertinents la mafia politico maraboutique voilà wala politico religieuse wala noo ko mën a tuddee mafia ba daal tàmbali na gaa yaa ngi deal ñu ngay deal gaa yaa ngi deal de ñu ngay recevoir ñu ngay laqatu ñu ngay jokkalante ñu ngay joxante loxo Ousmane Sonko ñoom fàtte nañ ko mille neuf cent ajak-jak fàtte nañ ko li yàlla waxoon ci doomu aadama ak xale yu déterminé yépp fàtte nañ waa ji bu jëlee bosam soxna si jël bosam soxna si bu jëlee bosam gaa yi jël seen bos ku nekk ngi jël li ko war ku nekk a ngi jël wàllam parce que xam nañu ne Amadou Ba ay milliards yu dul jeex la jël di ko pasar pasare ku nekk ngi jël li mu man voilà ñu ngay jiiroo waaye ñun nañu focus rek nañu concentré wu dinaa ñëwaat incha allah ci kanam ah dana saf de ci kanam am naa affaire yu ma denc de xaw ma ci kanam lay doon wala suba loo leen xalaat ma def ko ci kanam wala ma def ko suba xam nga yenn saa yi leen bëgg a sonal nag ndax crédit yi mais affaire yi ma denc fi mu ne nii yooyu bu fi newaatee tëll dootuñu nelawaat encore presque un mois am na yu bees yi waaj a génn de voilà à suivre ah nee ma ndaw si ndaw si soxna si soxna si borom sulli néew ya ne leen dinaa ñëwaat de maa ngi ñëw ci kanam de ma ñëw ci kanam wala suba ci kanam ah problème dana am de bu ma ñëwee dana am fu yëngu de cardiaque yi dana jógati de parce que nekk dégg naa saa bu ma tuddee rek turam rek tension am daal di jog dinaa ñëw ci kanam de incha allahu rabbi waaw maa ngi ñëwaat ci kanam tuuti rek bu soobee yàlla wa salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu